wolof tam njaag moo mi ngi man góorgóor leen ci lu ngeen nekk ayo baminyo baminyo malumpanin a jesus peparo événement ndi kam mbiyaten keng wonko nder mo mokko way moye won toon bon ma mozan ko wasu kiyasa ne faru kawai wuri ta kanda ya kafa a cikin yaban ya ambuli yin gari ya nauyi ne kawai wadda ta yi wani mun mai ne ba ko a ba zai zo na ta tula ya amma na ruwa ya ambuli yin gari ci na bokun na ci na bokun na gari ci ba mai tunai na wani mai na tara wani a ci fa fi banyanka y'injya tubaho kugira mbandu kumene banyamba chilikiti chipangalo chako uligombanyana te kwaisitaipa ilulo numuwuwulu ukokapia uliroho neulonkolikowo imichira lo alijalini oukobo pie nimantailer te ecebotiketendija kwenyi ngalo ilulu wonite maltir mainduutwa wukun gilukokakon lukokasitomo shukri అందుకే లబానంద തമന്തരിയുള്ള എന്തോമോ പോപ്പം തമന്തരി ഉപ്പത്ത് നസേം പറ്റി കേവലി ആറ്റും ബ്ലോ നെങ്കിലു ഉണ്ടാജ നെങ്കിലു ക്വാസ് തിപ്ലി ക്വാസം തന്നിയുള്ളോൻ ജോവാനെങ്കി ശിവെങ്കി tingi anjana liya mbok ti manja ko kijana manja ko kaja pili pesep tambre ka jana liya ama do ma ko ko ko liya di o foye o shende అందుకే నీ ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చింది రెండవటివి నీవు ఇంకో వీళ్ళు తోటి ఒక ఇతరులకు వచ్చింది ఒకడే బారా baaraam lañ tooy euh, dafa koy njippoyi oɗo baaraam woni manque euh, euh, par ce que invité fo ronde mo konte a invité o kon ɗon tawi ko nder ga mokk kolole rek ina ɗon piye par ko tis ɗum ndori moyen ɗon dignatel ko bobok di i activité no kolibukuro ye euh, ngenna kan fakon comme i kam mbiyan kon ci le 18 septembre aw ka euh, invité ringoori ɓe ñambikin men kum kadi ko tonki njarol weeki jawon ba buku ba bokk bi ko organisé biki biba kabi punnat ni bibu kiyank biba tong ba mëntagu waaw man mbaranu ke par wan aci koye mewi అలీలిపోతాయి మాకు అలాంటి తెల్లవాళ్ళు నియమించాలి మంచి అమ్ముకున్న ఒకటి నశించి నమ్మేయండి కొంచెం కమ్మండవు ఇంక కొనైతే బాగుంది మాన ఒక ఆఫర్ ఉంది అందుకు జరిగి నవ్వుకున్నాము ఉడేవి మేము తక్కువై అధికలైన పడుతాయి పాప మనస్యం బట్టి నవ్వుతుంది వంజతం గువారు ఏంజ నువ్వు పోతామని తేలరు తింగు ఒకటి అవన్నీ ఆ కేవీ తీరా అవన్నీ ఆ కలువ వేరే వాళ్ళు ఒకటి గింజ ongrinjakororo ntaijaka yaguruko ninyambate bachina ari bamaetongia mabikie ikibangirika eniemwerema ambara nobuzima okay, merci nantoi bendi bamwe umwe uno ntaja umwe kwasi tuli septembre manyaka jaka njala mi kombi papa jare ah manyaka ko nyaje ndere ngit bu fa bi nunta ko bu ko bu fa bu tan ngit bu takala ko ci ni ni ndere ngit anu Uelekeo zetu mara ni hapo majete majanko kabutu manjaku yuni mwini ko yinko wofi on ko der ka bokka dunum taje de ñu ko as ni septembre aw ci ñamba ko manjaku be ko jam ko dum ni foy de jeune de way passage ko ko ni ko ci intéressant ko manjaku de waralo ñu ta tanu bu jëk na

Kandeer rek a bokk ci borom. léegi ñoom ba wokk ma bokk ma jéggi di Dakar te lii ngi tuub parce que ma ñaan tuub jërë nga ci gimbandu amu teenu. ba bokk ba bokk lii na wani lo tan wanda ka ñaano siyambata debbe da ka mo lari ñan da ci wasu lolé ni na lolé na na lolé bara e ka ñaan bara bara bara na nekk na si si bu jom Antonio Bandera <laughs> waaw léegi ñoom boobu koo bokk. boobu koo bokk léegi ci boobu koo bokk rek. ma bokk Sénégal ma njàkk ma bokk ma njàkk. mu taajal mu bokkuwaas. ak septembre di foyer. ñaatu kecc. ak ci événement bi mel ñaam daatil baro. ah léegi kari mel ni ko naam niru la. di yëppoon ka ci ondo. potu kaat ka ci lo ka car. paas waat. mott ka ci lo. bargala ka ci ka ci. Ponson dabili into ma njambi Dakar ma puremba nono baramba ndera pour madame secrétaire générale Johanna waymoyonti uno uno uno uno mbiya wonko uno guno wontani uno kwasa waymoyeti wontul ndo euh, rwendo manjaku sénégal bi lendo ci uno wa aci bu jukk bi mebi euh, aci pa manjaku bilengo na roko aci manjaku re na roko bi i mo bu ci nuwa ñaka noont ñaka kay teew ma ko jënd bara rita rita boy ijo mbo ko ko tan mo ndo won ko ko ko ko ko ko zazibengamo bakubwa itujyanka w'abanyanzu nimo mutagani ndimo kuwasirifwera nina lwanyanjulukwa undaruvanyangulengu tupa vanyampuja kirifwayo nomuntu wandika yombanira kati nintu kati natsi kati napati kati natapana ubibija kirifwayere yopangisibiri bara bara bara rita rita eh, mari ekijombo wokuwokk Nicaragua gure kargo pula wai mo ye tuom purgo bandi buka tengkinja koi durure bukun nawari mmh. ah, be cire ke buko nanka boko dum deng mmh. sak na buko na boko dum na citi na ngal ne ko ci kan der ka bok du no xaware bare la ci braale ci gratuit. eh. baram baram baram ko nci ka ka bokk. Mhm. mais na mbiyu kay. Mhm. di caractère tàkk wu urañu ka bokk. bari mhm. yàlla gratuit bras gratuit. très bien. nan tey. ah waa bonjour. ah léegi ba bokk euh, ki nga ki nga roon ko bañ a ko tegi di foyer. boobu mooy ñett woon anjere elimpia siniulila Uh, dikachika baboko korukul mjala mchelo kumanyako dakare biliki matira tatlenta tlenta njone kumap atem bar ki, ki janga pukwani gnun taya ne ngno kwa ti pli kanjala lio pli kwasa tani plon wanu bi manja ku jadi eh nya pneti turu ku pisit labidi nimewe echumba bo bametunduku bambituku nibambafatukuku tulinge tuvyala majako rekperiba bokuchana tutivumene tu echumba bo wesiukaneleka bo baran baran antoisio secrétaire général kandeer ka bokk sénégal way mooy jë tuun tuunu bu jëkk bi ngiro banque le 18 léegi jom ba bokk man jàpp Dakar si léegi hoddema euh, mbaramburom euh, kabuma jak jomundu leydi ɗi kala yimɓete sénégal nduko e jakawa ma jakkudu e plus précisement mbo ñaami kimelte ɓe tinati ko nder kabo euh, ko jam ka le 18 le 18 septembre à partir 9 heure fa te directeur bu fa lundi. i njëkk ci di foyer. nangali quand même di mama jàpp. Mhm. di di noor. Mhm. comme bi aar na seen jaw yi ba ci gratuite. Mhm. promotion ko ci. boyal iberi tëb wala ka waajante. ako jaw ko ni daram ba. manaatan sa ndu ci na ci Dakar. aba juba ñaanu mundu bu yëngatu ka ndeer ka bokk tan koye cimati ka ndeer ka bokk rek buri ko wuti sika ñan fet wuti sika ñanu fet hmm. onda wantarinde pulema onde jen pour ɓe ñaam ka ka bokk ka ka ndeer ka bokk sénégal mbawi tuub ki jam lengo tuub mbitu wotani prime wotaniti hmm. prime hmm. wolita courant ko ñende baran baran secrétaire général jina journaliste en ndikendu ka to nañu man gorgol len ayo baminyo baminyo malumpanin ah baminyo baminyo mamalin yeah baminyo baminyo malumpanin